jërë ngeen jëf sunu mbokk internet yi mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yéen ngi ci Bawol info TV Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi kàddu gi di bàyyi ko fii ci dëkk bu sell bi di Touba tey la talaata ñaari fan ci weeru juillet atum 2024 mbokki nag tey jàngatu bis bi dañu koy jëmale ci euh, comité d'organisation màggalu Touba gi nga xam ne démb doon nañu amal CRD ngir waajal màggal gi euh, comité d'organisation màggalu Touba gi nag démb ci waxtaan bi nee nañu dañoo bëgg euh, waa Dakar dem dikk ñëw am taxawaay bi ñu amoon ci tabaski bi am ko ci màggal gi euh, maa ngi nuyu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalif général des Mourides di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi Mbacké di nuyu comité d'organisation màggalu Touba gi di rafetlu seen liggéey. di nuyu Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadr mbokk yi nag euh, xam ngeen ne ci tabaski bi ministre El Malick Ndiaye ministre bi ñu dénk wàllum dem bi ak wàllum dikk bi dafa am taxawaay boo xam ne daf ko amoon ci tabaski bi mooy euh, dem boo maraîcher pour ñu bañ a yokk paas yi waaye indi Dakar dem dikk pour ñu ñëw def renfort mën a yóbbu askan wi ñu dem tabaski ji Euh, El Malick nag ci tabaski bi moo nekkoon ministre bi nga xam ne ministre bi gënoon a fës ndax liggéey bi mu def euh, naam ministre bi ñu dénk wàllum élevage def na moom tam liggéey bu am solo ci tabaski bi ba askan bi ni ñoon jàmbatee xar xar tabaski gran gi gis ngeen ne problème boobu amul mais sénégalais yu bari bu tabaski jotee wala màggal pour ñu déplacer wu da daa nekk ay jafe-jafe ndax dafa am transporteur yoo xam ne euh, dañoo yàgg di arnaquer askan bi te état euh, état yi fi nekkoon dañ daa seetaan te kenn du seetaan saw askan ñu koy noot ak di ko troxal ndax transporteur yi ñenn si ñoom bu événement musaa am lu ci mel ni màggal wala tabaski wala seen ñoom lu leen neex lañ doon teg askan bi ci tabaski gi nag loolu la El Malick ñëw taxaw ne loolu dafay dakk ba sénégalais yu bari rafetlu woon taxawaay bi El amoon ci li nga xam ne mooy tabaski bi ndax bi ko El Malick defee am na ñenn ñoo xam ne ci opposition bi ñoom ñaawlu nañu ko ndax dafa am ñoo xam ne ñoom chaque jour lu man di am duñ ko rafet lu mais lañ koy ñaawlu te moo ne Euh, bi ñuy wàññi paas yi ci boo maraîcher ak di indi bus Dakar dem dikk yi xàmmewuñ kii APR la bokk xàmmewuñ kii Pastef la bokk xàmmewuñ ki PDS la bokk léegi nag liggéey bi nga xam ne tey gouvernement bu Sénégal def nañ ko ci wàllum transport ci tabaski bi euh, ñu gis ne ci tabaski bi doxalin woowu am na yërmande am na noflaay ci askan bi waaye communauté de comité d'organisation Magalu Touba gi dañoo gis ne li ministre des transports defoon ci tabaski bi baax na rafet na am na solo am na ndimbal am na yërmande tax ñu bëgg dakaar dem dikk ñëw am taxawaay bu mel noonu ci Magalu Touba gi ndax euh, état dafa war di àtte di bañ di maanaam état bi dafa war di saytu. fépp fu ñuy nootee askan bi rek état jóg taxaw ndax euh, transporteurs yi am na ñu meroon ñoom góor meroon nañ mais góoraxuma xuma lam meroon lépp mujj na ko jéggalu ndax yokk paas yi dafa jéggi dayoo ndax soo bëggee dem fu mel ni Kolda paas bi nekkoon neuf mille ñu bëggul ko yóbbul vingt mille vingt cinq mille ba trente mille loolu dafa ëpp te transporteur yenn yi dañ si exagéré daa def lu leen neex loolu nag la comité d'organisation màggalu Touba bëgg Dakar Dem Dikk ñëw am taxawaay ci li nga xam ne tey moom mooy màggalu Touba ndax xam ngeen ne màggalu Touba euh, wuute na sax ak tabaski ndax tabaski boo jógee Dakar ñii dañuy dem Kaolack ñii dañuy dem Tamba ñii dañuy dem Vélingara mais bu dee màggal la direction bi foo ma di jógee léeb yi ñëpp dajee mooy Touba. kon ministre euh, directeur euh, Dakar Dem Dikk jël na engagement ne dinañu fexe def seen kem kàttan ba askan bi dem màggali kon euh, ministre de transport moom na ko ñëpp séentu ci màggal gi ci garage boo maraîcher ngir bañ kenn yokk paas yi waaye indi renfort Dakar Dem Dikk loolu dafa nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa am solo te service état loolu lañ koy loolu lañ koy doyee ndax état moo wër ta seetaan ñenn ñi rek ngir seen intérêt personnel ñuy def lu leen neex moo tax état sax war na ñuy war na ñoo atte ak ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci suñu kaw di service téléphonique yi nga xam ne seen connexion yi cher na connexion bi léeg-léeg day bon du baax euh, boo jëndee crédit ñu ne la par force du passé date bi fu bari boo fa demee mën nga bañ am connexion bu baax man ngay wax ak nit ba mu yàgg ñu ne la day jokkoo fekk jokkoowut ak kenn loolu aussi état bi war na see ñëw taxaw ci euh, léegi nag ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi ñoom tiim dañoo war a dawal yërmande dañoo war a dawal yërmande ba pare dawal li nga xam ne mooy compréhension ñëpp xam nañ de bu màggalu Tuubaa jotee boo demee sooy dikk mën ngaa yooru tabaski boo demee booy dikk mën ngaa yooru waaye au moins booy yokk nga yokk loo xam ne lu raisonnable la foo doon demee euh, quatre mille événement bu jotee boo defoon cinq mille wala boo defoon six mille nit ñi mën koo xam mais foo doon def quatre mille événement jot nga bëgg koo def quinze mille xam ne presque da koy tripler loolu moo nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne lu jaaduwut léegi nag màggalu Tuubaa gi euh, ministre bi ñu dénk wàllum assainissement ak wàllum ndox mi moom tamit jël na engagement ci assainissement Touba ndax xam ngeen ne màggal gi soo moytulee ci biir nawet bi la ñuy fekk euh, démb tamit ci comité d'organisation màggal Touba gi waxtaan nañ fa lu jëm ci wàllum électrification ndax Touba ba léegi am na fu bari foo xam ne amugu amuñu courant ba pare courant bi tamit ci màggal gi dafay faral di néew doole loolu nag li koy waral mooy fu ñépp daw wuti foofu xat-xatloo mënu faa ñàkk courant bi di baissé peut-être mënu faa ñàkk réseau bi di manqué peut-être mënu faa ñàkk waaye lu ñu ko yokk mooy li nga xam ne moo gën ndax euh, li nga xam ne mooy màggalu Tuuba li muy part li muy participer ci économie réew mi moo am solo ndax tey ay milliards yi milliards yi milliards su ngeen demoon fi ñiy jaay fruit fu ne la fruit di jóge ñëw Sénégal bu màggal gi jub si ñiy jaay fruit bu màggal jotee seen bàmba day maase ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi jaaykatu nag yi jaaykatu xar yi jaaykatu giléem yi jaaykatu ginaar yi bu ngeen demoon ci entreprise yu mag yi jaaykatu ceeb yu mag yi opérateur ceeb yu mag yi commerçant yu mag yi ngeen laaj li ñuy dugal ci suukar li ñu dugal ci ceeb usines yi defar diwlin seen production lañ koy yokk usines yi defar farine seen production lañ koy yokk ñi nga xam ne ñooy defar boisson ñi koy defar seen production dañ koy yokk ñiy defar ndox opérateur téléphonique yi waa Sénélec li nit li ñuy lakk ci courant loolu lépp day nekk loo xam ne économie réew mi dafay dox bu baax a baax ci màggal gi ak ñi nga xam ne tey ñooy jaaykatu carburant yi jaaykatu carburant yi ndax fu ne la nit di jóge ak boo demee tey ñiy jaay billet d'avion fu ne la nit di jóge tey euh, di màggali fi nga xamante ni tey moom mooy Touba ñi nga xam ne ñooy defar ciment ndax bu màggal gi jubsee ñu bari ci Touba dañuy dañuy defaraat maanaam boo xoolee jaaykatu ndox yi aussi lépp rek mën nañoo wax ne économie réew mi amul lenn presque lu muy bàyyi tailleur yi dañ si gis seen bopp ñawkatu tiis yi dañ si gis seen bopp jaaykatu kurus yi dañ si gis seen bopp jaaykatu dàll yi dañ si gis seen bopp jaaykatu mbaxana yi dañ si gis seen bopp kon mu nekk économie boo xam ne économie bi day daw bu baax a baax a baax a baax mu nekk ay milliards milliards milliards bis bu mel noonu nag responsabilité état la mu xar si tànk tubayam ba lépp jeex ci jàmm ak salaam te responsabilité état la fépp fu aw askanam di daje mu yor seen kaaraange yor seen wér-gu-yaram kon euh, en tout cas li comité d'organisation bi woo waa Dakar Dem Dikk ngir ñu ñëw am taxawaay ci màggalu Tuubaa gi loolu firndeel na ne liggéey bi Dakar Dem Dikk defoon ci tabaski bi am na effet te aussi rafetlu nañ ko loolu aussi la ñuy xaar ci direction yépp ci màggal gi moo xam ministère de l'intérieur moo xam ministère de l'hydraulique ministère de la santé ndax xam ngeen Touba ñu bari ñoo fay dikk tuubaa dëkk bi dafay tànk xam na leen ay tentes yoo xam ne dañ fay def ñoom dañuy defal ay consultation gratuite ñu seen bopp di metti wala leneen ak leneen service d'hygiène ndax màggal Touba ñu bari dañ si tugg duggandoo mën nañoo jaay loo xam ne lu daan bi jeex la ak ak yeneen ak yeneen kon loolu si loolu aussi liggéeyu service d'hygiène la en daal. Euh, comité d'organisation bi dina woy di waxtaan ak bànqaas yi nga xam ne tey dañu am responsabilité bu mag a mag a mag ci li nga xam ne mooy màggal gi mais surtout transport bi ndax nit ñi dañuy am jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum dem bi ak wàllum euh, dëkk bi